sëñ bi Sidya Ndiaye ñu ngi lay nuyu. yow yaay secretaire général bu liggéeykat yëngatu ci wàllub collectivité locale te jiite FGTS di fédération général des travailleurs du Sénégal tey ji xibaar bi nga xamante ne jur na coow muy xalaat bi tukkee ci jëwriñ ji ngalool wàllub collectivité territorial di Omar Gueye wax ci lu ñu war a sumb wala bokk lu ñuy njort ni kon dañu supprimer ville yu mag yi lu ci mel ni Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque ak sax Thiès mu jàpp ni loole ngir ñu méngoo ak code général des collectivités locales loolu ban jàngat nga ci am. mais lii ngay wax nii. Hmm. seen existence bi mu ngi ci biir code code général des collectivités locales donc man gis nga li ñu naan méngoowul ak code général des collectivités locales c'est que ci article premier bi dañu ne collectivité locale or ñaari ordre la département bi ak commune. Hmm. mais si code bi encore article cent soixante-seize boo ko gisee dañu ne euh, ville commune lañu donc ville dafa am statut hybride maanaam ñaari compétence la am. compétence commune am na ko ak compétence département donc vraiment man gis ma du ñu ñagas wala li nga xamante ne illégal na extra ñuy wax ne euh, seen existence bi illégal ça veut dire que état bi dafa bay ay ay biir yoo xamante ne seen existence bi légalul bay leen depuis sept ans ñu ngi dox kenn waxu ci dara ñu xëy tey rek ne loolu c'est pas légal donc je crois que vraiment loolu aussi war nañ ci xalaat xool aussi euh, démarche bi naka lañ koy euh, fu ñu koy teg ñu bañ a wax ne lii ak lii la bu fekkee ne am na yeneen motivation nag ñu wax ko loolu moo gën a honnête ñu wax ne lii ak lii moo tax ñu koy supprimer bu boobaa ñu xam mais aussi ñu waxtaan ak askan bi parce que ñëpp euh, yi di man maa fi nekk rek may dogal may buur di bumi di di di di extra non code euh, code local yooyu am na exécutif local yoo xam ne askan bi moo leen fal comme ni ñuy fale président de la maanaam supra université donc ñoom aussi dañ leen war a jox cër bu mat sëkk pour que ñoom ñu am seen kaddu bu ñu wax population yi seen bopp la citoyen mais hmm. laaj leen nag par par voie référendaire ci la ko même par consultation si zone yooyu sax ci ville yooyu ñoo laaj ne ndax ñoom d' accord nañ ci loolu mais fii dafa mel ni nag a nekkee ci kaw rek yaay décidé yaay buur di ko bi loolu aussi dafa naa ne loolu dafay indi ay problème ay rëq-rëq surtout que ñun liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci gox waa bi hmm. fii lañu fi def acte réforme acte trois dañuy ne baaxul parce que day indi ay problème ci personnel bi. Hmm. c'est vrai ñoom def nañu effort pour que redéployer personnel yi région yi ci département yi mais département yi bëri bëgguñu woon personnel bi. Hmm. département yu bëri amuñu woon moyen pour fay seen salaire état bi ci boppam moo ñëwaat pour jàppale leen pour ñu fay salaire yi mais léegi boo jëlee bi yooyu ngay wax te boo xaymaa seen personnel bi nu mu nu mu amee nombre bi fa nekk mais fan nga leen di yóbbu après est-ce que ñun dinañ nanguti encore. Hmm. mesure yoo nga xamante ne daf dañ koy jël rek dañuy laaj appliqué ko après ñu ne loolu duñ ko loolu dañ daaw dem jàkkaarloo jàmmarloo ak ñoom gis na ko parce loolu vraiment ah manque de responsabilité la ci côté nga xamante ne mooy droit am na ñoo xamante ne ko comme ni leen foofu ba léegi mënuñu am couverture médicale te loolu employeur moo war a la couverture médicale mais amuñu woon moyen dañ jël ay nit yóbbu leen foofu te ñoom laaj ñu jël centre de santé yi nga xamante ne dafa diis. seen gestion jox ko jéego ñun transféré ci personnel bi te jox ñun mooy d' accompagnement yu mat rek donc je crois que vraiment question bi dafa sensible dafa sérieux tellement que war ñu rek par déclaration simplement mais dañu war a toog discuter ko ah comme ni ñu ko defoon ni ñu defoon def ak waa ñu créé commission nationale boo xam ne day xayma day xalaat ci affaire bi deesu ko woo ay expert en décentralisation ñoom ñu jox seen xalaat aménagement du territoire loolu mooy yoon mais bu fekkee ne dañu ay tolof tolof lay jur te bu boobaa nag ah mu góor a xam bootee doomam parce que ñun am na loo xam ne mënatuñu ko encaissé ñun personnel bi maanaam lu jóg rek daan suñu lu nangu ko loolu mënuñu ko mënatuñu ko. Mhm. loolu mooy dëgg. lu mooy personnel bi nga xamante ne lim bi kon takku na lool. ci grande ville yooyee ban solo nga jàpp ni Sidya Ndiaye grande ville yi lu ci mel ni ville bu Dakar am na ko. mais ville donc je crois que vraiment. ñoom li ñu war kay mooy mutualisation bi. ñu benn commune bu nekk nga nekk sa côté fële nga ni yow rek yaay dem mënoo dem mënoo demal sa bopp. mutualisation bi intercommunalité bi ñu ko loolu mooy priorité yi. naka la ñuy jël ressources yi nga xam ne moo ma nekk à seen disposition ñu mutualiser ko ba ñu mën a def ay ñu mën a consacrer au développement. tey problème d' emploi baa ngi fii yeneen problème yaa ngi immigration Euh, amul place pour ay débat yoo xam ne dafa ñuy tardel tardel ñu ah, ngi fi ay braquage ah ay ay xeet combat di te ñun askan bi diñ ci ñu bopp hmm. donc je crois que man appel boobu lay lancé parce que xam ni réew mi ñoo ko bokk yi nga xamante ne ay décision majeure la day impacté ci dundinu nit ni dañ ko war a teg ci table ñu waxtaane ko mu leer ñu bañ a def ay calcul politique politicien wala dugg fi ay ruq bi ay kii ay bric brac loolu vraiment passé nañ ko. Mhm. Sénégal bu ñu bëggee émerger comme ni ñu koy woowee émergence émergence mooy nañu góorgóorlu béy ñun ñëpp responsabilité joxante cër. Mhm. responsabilité ku nekk li nga yoree nga sàmm ko nu mu gën a rafetee. Mhm. pour que ëllëg bu ñu parce que man mandat la mandat bu ñu la ko joxee bu paree dañ nga koy delloo askan bi askan bi daal di tànnaat ñeneen ñi mu ñu bëgg. mais ñu nag bu fekkee ne yow yaa yori pouvoir bi boo léegi nga ne lu la neex rek ngay def loolu defe naa ne loolu Sénégal passé na foofu parce que état démocratique mooy euh, consensus. ak ak dialogue ah loolu moo ñu permettre ñu éviter yeneen situation am ñu ngi koy xam ñu ngi koy gis yeneen réew xam ne sorewuñu fi sax sorewuñu hmm. te tey environnement international dafa compliqué terrorisme ñu ngi baa ngi fii lu nekk ak pandémie bi suuf lu mu ngi jaxasee mu euh, problème yëpp projet yi ñu jaxasee ko tey ñu ngi dem plan au plan économique bu fekkee ne dafa continuer mbaa lan la continuer il y a beaucoup de de de problèmes yoo xam ne dina fi ñëw muy hôtellerie secteur tourisme ak secteur bu nekk bar restaurant ñëpp am nañu ay tolo trop Mm-hmm. Ah, économie bi presque c'est en berne donc ñun war nañu éviter débat yoo xamante ne daf ñuy tarbi dafay indi mm-hmm. eh, eh, dafay ay braquage ci position yoo xam ne amul benn amul benn benn benn intérêt populaire bu fekkee ne aussi dañuy posé débat bi pour noyer le poisson comme on le dit ah maanaam divertir nit ñi mm-hmm. loolu aussi mu ngi nii parce que dans la na nekk xëy na dañu bëggoon rek sànni benn os boo xam ne nii ñu nekk di wax di wax di wax di wax. au lieu que ñu consacré ci l'essentiel fii la ñuy fanaan di wax rek wax rek. loolu mooy gëlëmal askan wi bi ngay njort ndax bokk nga ci ñu gis ni eh, ci ginnaaw xalaat bi nguur gi am am na euh, politique bi ci lalu. non politique moom mën ci bañ dañ ñu koy jël amee am na calcul bu ñu ci def loolu leer na nañ kooku moom jarul sax ñu laam laam. Hmm. mais l'essentiel mooy nañ ko def euh, acteurs yëpp ànd ci ñu def parce que élection nag. ku fa dem askan wi moo lay sanction mm-hmm. mm-hmm. donc je crois que euh, war nañu éviter mm-hmm. saa saxee bu ñu def bu ngeen saa saxee collectivité locale yooyu bu ngeen a ne amuñu exemple exemple ko mu ci biir code bi donc je crois nañu ñu beneen argument ah, ba pare nañu nangu débat démocratique loolu mooy nañu teg affaire ñu waxtaan tout am argument foo xamante ni ba pare ñu considérer askan bi aussi parce que yooyu ah ak ban moyen lañ jël bu dee ay y a des grands comme la Suisse je me rappelle bu dee question yi nañu posé dañuy def votation. Hmm. maanaam dañuy def référendum laaj nit ñi préparé woon nañu. Hmm. parce que loolu système bi ah c'est possible. Hmm. mais mënoo nag yow nga yore ci yëpp nga ne léegi man nii nii laa gis affaire nii lay doxee loolu ay erreur la yoo xamante ne ëllëg fii la nekk di corriger waat di rattraper waat di dem rek ba kañ. Mm-hmm. dafa mel ni bu ñuy réformer du ñu xaar dara du ñu ko préparé donc il faut que une fois pour toog wax ne ñii cohérence territoriale bi ñuy wax man d'accord naa ni am na dëkkuwaay yoo xam ne war nañu ko defaat mm-hmm. mais ci kaw ñëpp ànd ci ñu discuter ko. Mm-hmm. parce que tey askan bi yeewu na askan bi am na loo xam ne mënatu ko toléré parce que dafa bëgg bokk ji li nga xam ne mooy gestion bonne gouvernance donc pour bonne gouvernance bi oui il faut que ñëpp di joxe seen xalaat. pour que ñu mën a avancer. ana fan ngeen toll ak état bi ci application fonction publique locale bi. waaw fonction publique locale bi toll nañ lool ci texte yi nga xam ne mooy texte réglementaire yi parce que loi bi ñu ko wote ba léegi ay décret la ñu nekkoon décret décret d'application parce que xam nga loi yi. Hmm. en général décret moo lay permettre nga appliquer. loolu hmm. des na tey ñaari décret rek moo des mooy décret yi nga xamante ne mooy régler problème diplôme parce que tey BFM rek la ñu reconnaître alors que yeneen diplôme yaa ngi ci comité yi baccalauréat yaa ngi fi doctorat ngi fi maître yaa ngi fi donc fi donc il faut que ñu daal di utiwaat waxtaan moo tax ñu def ko ci conseil de la fonction publique nga am mi d' na pour ñu réformer article L trente article trente cinq bu décret bi nga xam mooy classifier diplôme yi def nañu projet bi yóbbu nañu document bi secrétariat général du gouvernement pour ñu ok def na def na aussi beneen décret bi nga xam ne mooy Centre national de formation et de la fonction publique territoriale et de, de gestion de la fonction publique territoriale pour que lépp li nga xam ne mooy carrière fonctionnaire communaux yi ñu mën ko gérer donc loolu aussi mu ngi ci circuit bi defe naa ne projet bi tam pare na parce que conseil supérieur validé na ko yëbal ko conseil secrétaire général du gouvernement parce que boobu bu eggee niveau boobu moom moo koy circulariser pour ñu xool donc foofu la ñuy toll ci application donc li nga may wax bi dama ne loolu tam priorité la. tey bu fekkee ne bëgg nañu dégager priorité ci secteur décentralisation. comme collectivité territoriale priorité la parce que plus de dix ans loo xam ne yaa ngi koy topp di ko topp ba léegi antuwul donc vraiment loolu tam bokk na nga xam bu loolu la ñu war a jékkee war a prioriser bu fekkee ne fulaal nañu fayal nañu personnel bi. parce que ñoom ñoo ne ressources humaines composante bu essentiel la ci li nga xamante ne mooy développement local. donc mais ay débat yi ay foofu supprimer ay mag yooyu vraiment dafa teel dafay jaxase xel yi xel ah, te dafa mel ni daal yàq la bu ñu sànni ne comme ni ñu ko waxee ci nasaraan hmm. ah pour nit ñi di feeñu quoi yaa ngi comprendre. <laughs> voilà donc affaire bi la quoi. waaw ñu bëggoon léegi nga tontu ñu en tant que euh, vice-président bu alliance des syndicats autonomes de la santé ASAS bu yàggul dara ñu doon sàkku ci état bi ñu wax fu leer fan la ñu dugal euh, koppar gi ñu jagleel front force Covid 19 bi moo taxoon sax ngeen sumb opération gox yi fan ngeen ci toll ndax am ngeen léegi euh, tontu gu leer ci mbir mi. ba léegi bu leer def nañ a déposé ci surtout dañu fay suñu agent yooyu nga xam te ne agent de santé lañu di bokk ci fii seen santé publique nekk ci gox goxaan te ñun ñoo ne recruté ñoo nekk seen employé ma yaakaar ne prime bu fekkee ne njiit réew ci boppam nee na daf koy jëmbal ci liggéeykat de santé pour ñu gën a góor góorgóorlu ci xeexu covid bi bu ñëwee dañu war a teg après ci table bi ne ñii ak ñii ñii lay demee extra mais mënoo par parloo nga tànn ñu la neex ngeen fay ñii nga ne bay nañ loolu frustration lay indi parce que da ngay nekk di liggéey ak sa morom ngay dégg ne moom jot na mûrement te yow gisoo dara loolu teguñu ko fenn loolu gestion par par loolu la la boo xamante ne ñun dinañ ko xeex wala dañu yaakaar ni santé bi bu ma defee ñun amuñu njëriñ nañoo tëj suñu ñu xool ndax ñun amuñu njëriñ donc ñu crois que vraiment nañu affaire bi na leer ne wax kon nañ suñu xaalis yi koppar yi dugg nañ ko fay boo xëy bi moom dana wéy dina kon defani ñëw danañu remettre les choses à leur parce que tey de mille mille décembre dara en dehors de quatre mois ñu feen gars yi ñu war leen fay six mois ñii joxuñu leen dara loolu moom ñun mënuñ ko concevoir hmm. moo tax ñu ngi préparé wu fan yi dina ñëw di ñëw de waxtaan ak bi parce que xibaar yi xamal ne suñu plan d' action bu bees bi ni lañ ko tëralee bu laajee ñuy def préavis de grève dinañ ko def bu laajee ñuy ko def bu laajee ñuy def arrêt de travail dinañ ko def pour simplement ñu yéegi réew mi ñu. Hmm. xam ne ñun ñii kontaan nañu. nu mu def pour dimbali doomu aadama dimbali askan bi ñi nga ci santé ñun gis ñu dara tous nada. Hmm. ci jamono yi nga xamante ne ñu ngi ci deuxième vague bi ndax gis nga kaay di gën di yokk jamono ci ndax du gën a am métti rawatina euh, ci réew Sénégal yëpp ndax. Euh, waaw maa mu ne loolu moom ñaanuñu ko mais bu amee kan moo ko ko créé parce que il faut ñu wax ne France fan yii passé rek. Hmm. France infirmière yi dañu wàcc ci mbedd bi pour ñu respecter yokkal seen salaire pourtant plein profit ko def parce que nag ku nekk fi ngay liggéey da ngay bëgg a teg mais mënoo di liggéey di liggéey di dem rek moo am ñu nekk ci kaw di noos yow doo gis laal doo laal dara loolu moom tawaay loolu mënul dem. Hmm. loolu moom bu yaakaar ne mën nga jàll ci côté boobu doo dem parce que nañ la bloqué xamal ne nii nii. mooy ne droit suñu ak ay yëleef fii la li ñu moom nañ ñu ko jox parce que yow li nga moom jël nga ko ba pare. ban gis-gis nga am ci dogal yu mujj état bi jël rawatina ministère de l' intérieur ci lu jëm ci wàllu yenn restriction yi nga xamante ne daf ko fi delloowaat. waaw xam nga ni eh, état moom moom la yoon may mu mu aar askan bi te moom la yoon may yoon jox jumtukaay pour que mu préserver intérêt population surtout en matière sanitaire donc ministère de l' intérieur moo mu jël mesures yi. ma yaakaar ne situation Covid bi nga xam ne moo relancé waat parce que relancement moo amoon à un moment donné demoon nañu Sénégal ci deux premiers meilleurs pays ci xeex Covid bi ñëw benn am stratégie yi voilà ba ñu classé ñu ay deuxième xam ma sur le plan mondial. Mm-hmm. mais dafa mel ni dañoo naagu. yaa ngi dégg. Mm-hmm. bi affaire bi toll foofu ñëpp na la waaye day jeex na keroog kenn takkatul bas ah ñu pratique yi fi nekkoon am nga Sénégalais de. Mm-hmm. pratique yi fi nekkoon ñu ñëwaat ah. donc comme situation bi commencé na empiré wu nañu góorgóorlu ba delluwaat suy affaire yi nekkoon maanaam ñu contraindre nit ñi ñu respecté mesures barrières yi jël ay yenn matukaay rassemblement yi ay bëri ñu éviter ko askan bi tam ànd ci parce que loolu mooy yoon ñëpp dañu war a xool intérêt général war ñu xool seen intérêt bopp. Mhm. war nañ comprendre ne mesure bi ñu ko jël joxuñu ko pour toroxal leen wala pour priver liberté yi dañ ko def simplement pour que nit ñi xam ne véritablement bu ñu ko deful du affaire du du dem. te gis ngeen lu xew Europe lu xew ñu amuñu capacité euh, cinq mille cinq mille personnes mu fa ñu leen di hôpital yëpp fan fan mhm. donc ñun nañu continuer ci prévention rek mettre l'accent sur ça aussi bon ministère comme pour le moment waxagul ne damay dem ba couvre-feu dafa ne nañu renforcer waat mesure bi nañu xool nu ñuy def de transmission bi war nañ ci ànd mhm. population yi aussi war nañ dimbali état bi ci côté boobu pour que ñu góorgóorlu véritablement ñu bañ a indi ay problème ci question euh, sécuritaire yi question sanitaire yi parce que ñoom ñoo nekk niveau boo xamante ne am nañu information bu leen permettre ñu ne nii bu ñu ko deful affaire yi sot ma fàttali ni yow yaay secrétaire général bu syndicat liggéeykat yi yëngatu ci wàllu collectivité locale yi jiite tamit VTS euh, nekkit ca ASAS Sidé Ndiaye Rewmi FM mu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant di